amna yenn secteur yo xamné ne ñu bénéficier wu ci crise foo gisee crise ci bi amna yenn secteur yo xamné ñom la euh, crise bi du leen affecté lu bari wala lu mu leen di affecté day wàññeeku par rapport ak yenen secteur Dolo euh, lu am loolu am la wanté aussi état bi dina jël ay matukay pour que euh, ay nit wala ay secteur bañ ci profité aussi euh, loolu mooy li nga xam ne tam euh, état bi jël na ay matukaay euh, par exemple ministère du commerce jël na ay matukaay ndax prix denrée yi bañ a yokk parce que loolu aussi ñun Sénégal ak dëkk yu bëri loolu loolu am solo en tout cas pour dëkk yëpp moo tax ñun stockage au Sénégal lu am solo stocké ay denrées de première nécessité par exemple ñun xam nañ ne lépp lu jëm ci denrée première nécessité ceeb ay dëwlin ay suukar et cetera am nañ ci ay stock yu doy am nañ aussi malgré la crise ay yeneen bateau yu ñëw ay commandes yoo xam ne à l'étranger si exécuté dinañ ñëw donc loolu amul ci benn tiitaange wante en même temps ñu jël ay mesures pour nous assurer que yenn produits aussi ay nit duñ ci profito euh, par exemple pour yokk seen ay prix. suñu économie suñu xel dal na ci bu baax wante xam nañ ne euh, affaire bi foog mu laal suñu économie moo tax ñuy fagaru da ngay fagaru fagaru président créé euh, fonds force Covid 19 euh, en même temps aussi euh, comité de croissance et de veille économique bi nga ko taxawal donc ñaari initiative yooyu den ci xarañ den ci liggéey bu baax ndax ñu ko taxawal ndax askan ak économie. comme ni ma ko waxee économie secteur yëpp dañ leen di affecté yaa ngi doon am 1 million six cent mille touristes mooy euh, benn million ak juróom benni euh, téeméeri junni touriste euh, nga jékki-jékki d'abord ñu fermer liaison aérienne ci ci dëkk yi nga xam ne ñoo ëpp lu ñuy jox ci ay touristes. tey jël nañ dogal matuwaay ñu tëj ñu tëj par exemple aéroport yi donc kenn du dugg kenn du génn loolu day affecté tourisme donc lu ñuy ñaan loolu bañ a yàgg euh, donc loolu foog mu affecté chiffre d'affaires des secteurs du secteur du tourisme donc loolu leer nañ